ديسكا انفو يني ابوني قول ابوني لنقاو الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واسترشد برشده إلى يوم الدين إخوة الإيمان أيها المسترشدون والمسترشدات السلام عليكم ورحمة الله ينجي نيو سمو مبوك yépp دي لين زيارة تي تاكوسانو ajjuma خمنا xam لولين xawma waye li ñi wax hajaratan bi darbatayn defe naa ni darbatin la ñuy wax tay sanni ben xeer jam ñaari picc waye tay ben xeer lañu sanni jam groupe picc ndax ci rajab lañu nek nek ci rajab muy ajjuma nek ci rajab muy ajjuma muy mois de mars mois de mars ñi ñu am ki di mamad ki di mamad ci la ñu génn àddina te mam bu jëkk bi di sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu lu sëriñ Moustapha si am ci moom mamu ñaareel bi di Seyid Cheikh Ahmad Tijani si yéene bi sëñ Babacar si amoon ci sëriñ Moustapha moo ko yeggale te it mooy professeur ñoom ñaar suñu génnee àddina ci mois de mars bi diggante quinze ak vingt cinq ah ngeen tànn tey waxtaane mbindu Seyid Cheikh Ahmad Tijani si lim ci woy lan lay def ci jeexital ci doomu aadama doomu aadama laa wax mu di leen xamal ni maa ngi leen di waatal ci yàlla ni milieu bu ma waxtaane bu dul milieu bii rek bii a ko gën parce que man mënumaa waxtaan mënuma conférence waaye nag macha allah mën na ma jàngale te bindu Seyid Cheikh Ahmad Tijani si sawar naa ci jàngale ko waaye bokk na ci li ma daan mébét mooy am milieu universitaire ñu woo professeurs yi scientifique yi ku ñuy yaakaar ci xam-xam rekk woonaa la boo ñëwee ma may la nga ni ma domaine sàngam ma ni leen lii la ci sama sëriñ bi moo tax sax waxtaan wi li ma ci ëmb ak li ma ci yéene mënula sot moo tax dañ koy def genre cocktail jël tuuti ci lii jël tuuti ci lii jël tuuti ci lii jox leen nag ngeen tàqamtiku ci ñam kuu bii ni bii ban la mën la demal ci taaxat nga dem gëstu ji ko ci ñam guu bii ni guu bii lan la mën la demal ci alxarb nga dem gëstu ji ko ci ñam guu bii ni bii lan la mën la demal ci ardu buleel soo ma laajee nag ardu buleel man la ay toolam la doon woykat di woy ay tool ba pare dugal ci xeetu xam-xam yépp ak domaine yépp xawma sax lu indi Astou Mbaye mi bi mu taalifee ardu buleel sampab jaase rahmatullah alayhi di ko waa sëriñ waaw di woy ay tool dugal ci lii nga ci dugal yëpp mu ne ko élage ay xam-xam yu ma bañ mu rëcc moom laa ci tëgg waaye nag exploité wuñu ko moo tax seen ndono la loolu laa bëgg a yee ci yéen parce que dina ci profité sax xam naa temps bi dina lekk sama muqaddima bi man dama am lu may révolté parfois li may révolté mooy ñun dañuy subir ñaari agression culturelle bii jóge ci tubaab yi bii jóge ci naar yi arab yi bi jóge ci tubaab yi mooy tubaab yi biñ ñu coloniser seen langue biñ ñu jàngal tax na xam-xam bu nekk ci langue boobu la nu ko jàngal te xam-xam ba moo am solo langue bi moyen la ca rek waaye boo ko xamul ci langue boobu suñ la ko jàngalewoon ci wolof ba nga maîtriser lépp luy médecine boo ñëwee taxaw bëgg a exercer ñun la déedéet an sa diplôme te diplôme bi boo wanewul këy boo xam ni tubaab la tubaab moo la ko jox ñu ni la wóorul te boo ko appliqué kat ñu xam ni nii xam-xam bi nii la demee lutax ñu reconnaître ko lolu pour lan moo tax sëñ Moustapha bind na ci ay année 83 yoyu bind na ci ben discours bu mu defone ci Bagdad def ko sur l'agression culturelle et ses multiples facettes contre l'islam الغزو الفكري وأساليبه المتنوعة ضد الإسلام mais beneen agression bi ñu jëlee ci ci ci arab yi mooy al alquran ci arab la wàcc ñuy jàng sharia bi lugal arabiya léegi pour nga maîtriser lugal arabiya ñu ni la ñi gën a célèbre ci woykat yi ñoom ngay jàng ñu ni la siis lañu di la wax imruul qays di la wax zuhayr di la wax nabiga di la wax antara nangam nangam mais ibnu alxays bii ñu ci wax ni moo ci gën a rafet lu muy wax lan la lay jàngal xale bu jigéen ba di princesse baayam denc ko ca kaw étage ba ma def ay pexe ba fekk ko ak robe de chambre am ma yëngal sama karaw gi mu daanu ma charmer ko waxtaan ak moom génne ko tiri ko ci beeñ bi tëral ko ci beeñ bi foye ko ñu lay jàngal wax wax yooyu ci rafetaay ci littérature mais rafetaay boobu ci littérature est-ce que du def ci yow jeexital yàq su jikko kon pour dégg lugal arabiya rek ñu ni loolu la te nga gis te nga gis sunu kilifay man su ma doon tànn nag amiru shuara Seyd Ahmed Tijani si laay wax mooy prince bi moo tax Pam si wax na ko ko xadaat riqabu sawil balagati fi lwara li jalalihi l adabi fa faaqa jamala nee na ñi ñu naw seen plume nee bi ñu ñëwee ci kanamu Seyid Cheikh Ahmed Tidiane si nee na sukkuñu sax dañoo tëdd ni ko jëlal sa tànk nga teg ko ci suñu loos parce que majesté beauté bi ci sa pind gisuñu ko fenn mosuñu ko gis fenn et pourtant bu koy wax mu ngi lay jàngal nga dem Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala la muy wax na mu rafete nga dem ci maam Serigne Touba dem ci sëñ Babacar si mii nga xam ni nii moom exploité wuñ ko ah yooyu pour lan rek ñu topp tubaab yi pour lan rek ñu topp arab yi am nañu héritage taraka al imaamu lana turasan qayiman ibaran tura linnashiina siqala tibrim يزيد جلالة كلماته وبدائع تبقى كذلك كالا بام مودو سي موكوي نينا بايل في اريتاج boo xam ne nii nee na wurus la nee na baatam yi nee na suñu ko suñu ko toppee nee na dinañ ci gis xeetu xam-xam bu nekk waaye ñi nga xam ne nii ñoom la gën a nekk nag seen ndono mooy jeunesse moo tax bi ngeen ma wooyee ci loolu ma sawar ci waaye nag cadre bi xat moo tax ma ni dañuy ñam ci dara mu ngi toog ci xayaal al xayaal al mooy toog ci pas ci imagination ba am une semaine séparé ak yonent bi benn yoon lépp mu ngi ko nekk mëti sam papa Ndiassé ñëw mu ne ko El Hadj man de bi yëpp maa nga Madina mu i ko sëriñ bi dangaa tukki woon mu ne ko diine waaye yonent bi maa ngi nekk ak moom sallallahu bi bis bu nekk ba dama mujj pour ma dal dama def ci moom benn tawassul moo tax xasida boobu Sampa Ndiassé la ko jëkk a jox ba pare firil ko ko sam papa alaaji mbay ñëw sama kër pap njaase xool xasiida bi ci téere bi mu sàcc xasiida bi bind ko ba pare sëñ seex ñëw gàmmu Tiwaawan di waxtaan ba ci biir tuddu yonent bi salaa wasallam bay mbay yëkkati qasida bi sëñ Cheikh li jak sampab njaas diko xol sampam sampab jog jóg billahi ko billaahi da koo sàcc mu ne ko waaye lañ ko don toy taxat boobu xam naa sax dinaa ko wax fi mais su ngeen demee ci youtube bi firi naa ko ci mais xoolal taahat sëñ Cheikh radiyallaahu anhu yonent bi salaa sallam moo ko tax a jóg pour def tawassul ci moom mais xoolal lim ci jàngale parce que balaa muy wax yonent bi salaa alayhi wa sallam yonent bi dañ koo bind ku ko bind du yàlla te yalla bind na leneen ludul nit kon so jeli sa lepp delo ko ci yem len bayyi nga leneen moy lima len wax ci mbindam ño exploiter ndo lepp motax la laata muy dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu bak yalla ba bin gi da ngay yaakaar ni yonent bi taxu koo way xol limu wax taat bi nuri jamalikal ahlam ya man huwa al khallaq wal allaam taahat muni gëlëm ñu ni kan muni al ahlam ñi am sago ki amul sago bu gelemé du jaxal kenn ñu ni lu ko gëlëmloo mu ni bi nuuri jamaalik sa leeru taar bi moo gëlëmloo borom sago yi ñu ni ko danga sa leeru taar bi kan mu ni yaman huwal xallaaq nga gis yéen ñi arab mu wax xallaaq diggante xaaliq ak xallaaq yaman huwal xallaaq yow bindaa kon bi wala àllaamu xamaa kon bi dama leen di jàngalaale wolof bindaa kon bi bokkul ak bindkat bi xamaa xamaa xamaa kon bi bokkul ak xamkat bi bindaa kon mooy loolu mooy sa jikko xamaa ko mooy loolu mu ni wa aba siwaaka alxaqu min si xaqihim wala atatu ayidu mulkakal ayyaam mu ni ko dëgg daal dañ ko ni nañ la askanale mu ni ku ngeen may askanale bu dul yàlla lànk na borom dëgg yi ku dëgg ni ku ngeen ma askanale ku dul yàlla man lànk mu ni fala anta rabbun waxidun bi sifaatihi wa fiaalihi bi shahadatin tu'taam muni yow sunu borom yow buur nga bo xamni da nga weto da nga weto sa meloy da nga weto sa lolou nak dañ ci bolé bo xamni mom lañu tam فلا فلأنت خير مكون ومقدر ومهيمن تجري له الأحكام فلا أنت خير مكون نو بغون صح دف كو اي اي فاسيبل ديسوربي لين كو نين نين نين كوي سيفر باسكو دو وقتان كور فلا انت خير مكون ومقدر ومهيمن tajri lahul ahkaam mu ne ko kuy former rek di nekkal yaa ko ko dàq kuy natt yaa ko ko dàq kuy arbitre yaa ko ko dàq parce que yow yaay arbitre suprême parce que mu kawwinin univers bii ñu nekk ak yeneen univers dina ko tudd ci biir xasiida bi nattale gi muy nattale ba lu nekk fa mu war a nekk mu nekk fa ci taqdiir boobu sax ci la bind doom aadama ndax su dul su nekkul woon muqaddir kon doom aadama suy toog day part waaye yi muy tooge moom doomu aadama yàlla da koo nattale ba mu équilibré di nattale ba natt jant bi fa mu war a nekk ci ay kilomètres nim nu war a mën a jariñe jariñ suñu jur ak suñuy gàncax bu gënoon a kawe du nu mën a jariñ bu gënoon a jege lornu lépp suñu borom متت تجري له الاحكام التيب داي داو مني ما كل شيء في العوالم كلها الا كما خطب به الاقلام مني امول لن تي اونيفيري لوتول نيكو يالا بريباري وون ديسكو بروجي باسكو مونكو ديفون بروجي تي جبرون jox ko forme ci mëlëkoot waaye fam ko war a projet ba na mu ko rëdde woon ci plan manquéwul benn millimètre na ko rëdde woon rekk noonu la nekk nga xam ni lépp loo gis nuun والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون دينكو اندي تي الغرب ولمن بزي قلم يخط النون يلا لو نيك رد نكو نمكو كو رد وون ديف بروجي ديف ماكيت بام كوي رياليزي نم سخلا وون نون لا dara manki wu ca dara ëpp ca ñu ni ko ah waaw doon lu ci jox exemple mu ni fa chamsu benn la muy jant bi le soleil ak yéen ñi ko jàngat la mu àndal ci njaboot boot leen wal qamarul muniiru muy weer wi waaye wa xayruhu mu jàngal leen la ya weer wi nga xam nag waaye am na yeneen weer bu bokkul ak sunu bas wal ardu planète terre bi wal miriixu muy mars wal ajraamu ak yeneen corps céleste yépp tati li ayni muraqibin min nazratin bu leen yàlla dee contrôler benn yoon rek lay sànni bëtam contrôler li ci jant bi li ci weer wi li ci planète terre bi li ci mars li ci yeneen corps céleste yépp te université bi recteur bi mënul la contrôler lu passé bureau ba mu tiim waaye pavillon nangam pavillon nangam pavillon nangam bu déplacé wul te mu def ko dina ko def ci temps bu bu yàgg yàlla ne benn kuutey rek mu sànni ko contrôler li ci jant bi énergie baag la ca aju weer wi ah planète bi mars yeneen corps céleste yi te kat fa kama qtadaahu riayatun wa nidaam ñooñu comme ñu ngi taw te kenn ku nekk vitesse bi ngay taw ak doole ji nga àndal soo wàccee sa trajectoire boo dajeeg sa moroom adduna tukki mu leen di xàjj ni nga xamee ni nii noon ngay jiitale ay ay jur benn bëgg a génn nga xàjj ko ni ko delluwaatal ci rang yi noonu la di noonu la leen di contrôler ñu ni kon ki koy contrôler naka la mu ni waaye laakin na zaataka nag laa tura illa kama tëntëkku xurba jalaalihal aalaam sa jëmm ji nag kenn du ko gis lu dul dafa mel ni ka doon sàkku pour gis la te mooy yonent Muusa alayhi mu ni ko rabbi arini anzur ilayk ilayk yàlla wan ma bopp mu ni ko lantaraani lan bu dàqee li mu dàq du ñëw lan taraan yi doom a gis ne waaye soo amee élève bu curieux bu la poser question bu ko nit ñi loolu mënta nekk da ko koy démontrer ba mu xam li mu war a xam mu ne ko kon nag nañ essayé unzur ilal jabali xoolal montagne bi in istaqarra makanahu fa sawfa taraani montagne bi su résister li ma koy wan ma yaakaar ni nii di ko mën a gis waaye falammaa tajallaa rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan yàlla projeté li muy projeté ci montagne bi tilli montagne bi moo ëpp montagne yu ngor bi tilli ji moo xamloo Moussa Moussa ximmiliku gisatul montagne Thiès Info yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw bësale cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa ngeen jëf